jaxate tontu en tant que président de Pastef lu baa wax président Pastef yoonu procureur nekku ci parce que président Pastef moo baa jaxate ak man mi ak yow ñoo yem ci ci loi bi kon la ko bàaja wax bu fekkee dafa naqari Ousmane Sonko moom moo war a porter plainte mais yoonu procureur nekku ci li ñuy wax diffusion de fausse nouvelle maanaam tasaare xabaar bu du dëgg Ousmane Sonko 2016 bi ñu ko dàqee foog euh, DG dafa def déclaration de patrimoine bind ni lii laa am ñu toog ñaari at après 2018 mu jaay ak kër. jaay ko cent millions. kër googu mu ngi ko jënd 2008 kon déclaration bi mu def 2016 defu ko ci kon fenn na Sénégal Bah Diakhaté deful dara fii mu ne nii ci loxo yi dikk dañ ko war a bàyyi mu ñibbi c'est un otage et personne ne doit l'accepter parce que bu ñu leen bàyyi lii jàll ëllëg ñëpp lañ daw li tax na ma ña may wax loolu mooy man sama bopp. il y a un mois sama xarit daf ma woo ne ma gars yi di ñu ngi say tànk ah ma ne ko nañ gaaw ñëw man dama yàkkamti dama nam rëbës bëkk démb ci sama semaine bi weesu sama beneen xarit woo ma ma dem këram fekk ko mu ne ma dafa am ci mu ne ma diw diw moo nag du tudd turam léegi c'est un avocat ci pool yi doon défendre Ousmane Sonko la bokk avocat bu siiw kooku ne ko waxal Moustapha Diakhaté mu teggi tànkam ma ne ko man de sama tànk tegaguma ko sax ba di ko teg ndax man opposé guma Ousmane Sonko <laughs> su ma ko opposé daañu xam ne opposé naa ko ma ne ko benn xam na sama numéro téléphone na ma woo Ousmane Sonko man de bi may teg sama tànk ci politique 1966 la ba ba Ousmane Sonko ñaari at la am bi may teg sama tànk ci politique 19 2016 1976 ci RND booba Bassirou Diomaye Faye judduwut bi may teg sama tànk ci politique boobu avocat boobu judduwut ñoom ñëpp nag seen bàyyi xaw ma ko woon ci xeex bi kon encore une fois bi bi ñu ma waxee loolu man damaa jàppoon ne man la ñuy jëkk jàpp ci baax xëy na dañoo amagul lu ñu ma jàppee waaye man jàpp naa ne dañ ma jàpp ndax loolu lu ñu programme ginnaaw nag ñoom fen nañu ba falu te wóor nañ duñ fi def dara ci jàpp ak tiitalaat yi lañ bëgg a mooy loolu. ñu gis ne ne euh, ñi nga xamante ne mooy gouvernement bu bees bi dafa prôné woon bu yàgg li nga xamante ne moo jëm ci wàllu abrogation li ñeel euh, article quatre-vingt muy offense au chef de l'État tey gis nañ ne peut-être ci yenn mbir yi bu dul offense au chef de l'État itam ñu ngi koy def offense au premier ministre. Ah. par rapport à cet article euh, noo ko jàngatee est-ce que tey jotul yenn pratiques yi nga xamante ne peut moom lañ doon nemmeeku muy ñenn ñi ñu daan woowee les insulteurs de la république tey jii loolu war a mën a dakk ci ci ci réew mu mel nii. xam nga man moom ñi ma xam di ma suivre yëpp xam nañ ne naka jekk dama mosu d' accord ci offense au chef de l' parce que loolu day loi boo xam dañ ko donné ci nguur. Hmm. man gëwuma loolu. mooy nag mooy article deux cent cinquante quatre. oui wala deux cent cinquante cinq hmm. li nga xam ne moo daan am 1960 ba léegi. Hmm. dañ daan jàpp nit ñi ci offense au chef de l' Ousmane Sonko nag moo fi indi offense au premier ministre mi ngi woon nag ci code pénal bi daan dégg nit ñaa nekku ci waaye am na lu koy niru ci code pénal bi mhm. waaye offense au premier ministre moom Ousmane Sonko ko fi indi ah xanaa loolu nag li tax mooy ginnaaw moom mooy président de fait et que Bassirou Diomaye Faye est un président xam naa moo tax mu bëgg a jaawale boppam ak premier président de la république encore une fois Bah Diakhaté li ñu koy toppee amul offense moom lépp dëgg la te nag ki mu doon waxal président de Pastef la doon waaye waxul ak premier ministre de la république du Sénégal Ousmane Sonko nag moo waxal boppam keroog ci mbirum Mélenchon ma ne moom ñëwu fa ci turu état bi turu Pastef la fa ñëwee. gannaaw nag ci turu Pastef la fa ñëwee lu ñu ko wax ci ci mbir mooma. daa war a jàpp ni Pastef lañ ko loolu moo tax le procureur de la République xaw ma ban procureur la ci waaye li def turu ko penn yoon mayu ko. alors euh, euh, président ñu bëri dañoo soulever cette question euh, jëm ci offense au chef du gouvernement ñu ciy laam-laame ndax am naam déet ñun on a interrogé aujourd'hui un professeur en droit nekk ci université Cheikh Anta de Dakar en l'occurrence Serigne Thiam mi wax ne cette disposition est bien prévue par le législateur dans le code pénal en son article wax nga ko léegi deux cent 154 mais bii ci alinéa 2 bi. Euh, parce que dafa wax ne monsieur Ousmane Sonko en tant que chef de gouvernement est aussi dépositaire euh, des pouvoirs du président de la République Bassirou Diomaye est-ce que foofu itam mënuñu jàpp ne ay la que offense au chef du gouvernement am na. waaw xam nga offense au chef du ci effectivement alinéa bu code pénal parce que daf les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou hmm. la c'est un il est délégataire des pouvoirs du président de la République. kon mën naa jàpp ne lii offense au premier am na. man la Ousmane Sonko nag moo ko fi jëkk a tudd. maintenant dama laa wax ne la Ousmane Sonko. président Pastef moo demoon université. la mu ko wax koo baa jaxate mi koy tontu ci président Pastef la doon tontu. kon offense nekkul maintenant yeneen di yeneen yi nga xam ne daf koo wax. yoo xam ne jiitu na lii. Ousmane Sonko Diomaye Faye ak seeni avocat ak Ousmane Diagne nañu xam ne amnistie bi tax. Mhm. Bassirou Diomaye Faye ak Sonko taal réew mi génn nekk nekk candidat amnistie bi tax. ñu taal Auchan yi taal Total yi yàq BRT taal université di taxawal amnistie boobee mooy yóbbaale jëpp wax joo xam ne daa jëmoon ci politique ci biir pa biir amnistie boobu kon Bah Diakhaté def fa dara bu ne su ko topp ci lenn ci li mu wax. alors ñu bëri jàppoon nañu ne ce nouveau régime dañu jaay rupture alors avec l'arrestation de certains opposants certains pensent que ni mbir yi continuité lay nuru. ban jàngat yées yées ci xëy na di waaye continuité sa du am kenn ku ne dégg na koo xam ne daa bokk ci passé ñépp xam mu saaga Diomaye fay ndey mu ngi taxawal naan diw nañ ko jàpp ah di li ma fi dégg ku saaga président ndey moom bëriwut kon ñoom am nañ ci seen ki seen seen kër koo xam ne saaga na Diomaye Faye ndey xam naa ne Diomaye Faye moom yaayam gëj naa dégg saaga ndey ne ma ma soo ko dégg waaye waa Pastef a ko saaga mhm. kooku nag mi ngi taxawal léegi nag bu ñu bàyyee bu ñu bàyyee kooku muy taxawal ñu jël koo xam ne président Pastef la doon tontu procureur di ko solal rabb kon waxuma du du continuité yéeste moom la Ousmane Sonko ak Diomaye Faye indi ci réew mi. ñu dégg ku mel ni avant may jox Ndeye Fatou Sidi Gassama mel ni kuy conseiller su nouveau régime di leen wax ne bu ñu tàbbi ci ancienne pratique yi nga xam ne régime bi fi jóge mi ngi ko doon def à travers ñuy gis rek ay arrestation euh, d'hommes politique wala opposant euh, est-ce que loolu euh, jàpp nga ne rappel bi lu am solo la ci ce nouveau régime la waaw bu ngeen rappel bi daa war a gën a leer xam nga Seydi daa ma sa wax nekk dañoo war a génn ci code pénal offense au de l'État mmh. da ko daan wax naka jël mmh. waaye na ko fàttali ko waat gaayam yooyu rek jëmaa yeeg Sonko na leen fàttaliwaat ne nañu dindi loi boobu kooku moo gën moo gën a wóor naan buñ tàbbi ci piège bi piège bi loi ci loi bu Sénégal moo am offense au chef de l'État am offense au premier ministre tant que mi ngi ci biir kii bi ku ko def ku leen offense ku ne war mais Ousmane damay rappeler ne baa fay baa baa jaxate jàppewuñu ko ci offense au chef du gouvernement baa jaxate li mu wax Ousmane Sonko président Pastef la ko wax parce que Ousmane Sonko moo wax kër ba muy dajale ba muy dalal euh, Jean-Luc muy góor gu muy bàkku naan moom ci ñu gën a fonk nguur jigéen la bokk booba dafa ci turu Pastef la fa dem waaye dem ci turu gouvernement bu Sénégal. honorable ñu gis euh, kii di Bah Diakhaté ñu jàpp ko jour euh, boo xam ne jour férié la méthode yooyu ñu yàgg ko dénoncé mais aussi Imam Ndaw ñu jàpp ko ci fajar muy des méthodes yoo xam ne euh, temps clandestinité lañ ko daan opéré mais aussi di méthode yoo xam ne dañu mës a jàpp ne du luy méngoo ak état de droit. xam nga non seulement du repos gën a garaaw mooy Ousmane Sonko coowul coowul homosexuel actualité moo ko bindi woon defoon YouTube waxoon wax jooju bàyyi kenn kenn waxatu ko woon moom moo fi indi góor koo xam ne Jean-Luc Mélenchon d'abord un ku gëmul yàlla la deux ma maçon la trois kuy jàppale góor jigéen indi ko Sénégal yóbbu ko université Dakar teg ko ci kanam